ben camion mo fi ñëwoon pour euh, wàccee ciment bu mo garé ba paré euh apprenti bi tal auto bi non la auto bi euh biir classe bi mom mu mu tëb bàyyi oto bi mu dugg classe bi toj li fa nek bon daf ko yàq moom présentement nii vraiment euh sama hol da fess bon waxon nako en français waxon nako en français li yaw mi sax gis nga ko fi lepp la fi yak amu fi lu fi dess à part Armar bale bu taxaw moom lañ ci mëna peut-être récupérer mais li ki tout est parti donc classe bi ñun euh, on n'a rien à faire sauf peut-être euh, xool classe bii ni mënuñu ci dara buñ ci mënon dara ñu faj ko légui légui bon autorité yi li message buma ma leen di lancer mooy euh, ñu jappalé ñu jéem ñu au moins rétablir les deux blocs parce que bien avant la rentrée on a perdu une classe bu nga xamné taw bi moko yak ñu ngi nii yaakaat encore euh, kii ñew yakat encore bi Té légui lañ joggé police mom ñewul donc dafa melni daf ko daf ko tey te warul fii génne euh, camion am donc euh, autorité yi lima ma leen di lancer moy les autorités locales moy les autorités comment encore centrale ma lancé leen message ñu ñew jappalé ñu reprendre ñu les deux blocs xale yi mëna a dans de bonne sécurité aussi en même temps le mur de clôture ak gardien parce que amuñu gardien ñawtef bi amna mi ngi am boru 10h tok nañ fi presque 1h30 demie wala 2h de temps avant police di ñew biñu ñëwé def nañ constat ñu convoqué ñu ñu wara ñew 10h à 10h nous étions à la police mais le chauffeur n'était pas là Et man je me demande ça lutax chauffeur bi bay ñu tax ñu bay auto bi mu dem bi affaire bi amé aussi normalement direct euh, l'inspecteur waron na fi ñew la mairie waron na ñew le préfet le préfet daw bi école bi inondé dafa waxone dafa jëron engagement jël fi sax né nañ ko défal euh, devis pour ñu défal mur clôture mais jusqu'à présent ñu dara donc école bi dal vraiment mi ngi nii ñu bàyyi ñu ñëpp ñu sétane ñëpp ñu sétane classe yi y a trois classes yo xamné il y a trois classes yo xamné baxu ñu classe bi CP e la recevoir ren euh, CI bi mu nekkoon daw xam nga ak Covid bi presque jànguñu donc ñii seen classe yakuna dañuy toogaat ba kañ pour jang hein ah, imagine li bu done beuk tay musiba la une classe de 53 élèves hein, bu done beuk te accident bu melni nii am amuñu ben kilifa bu ñew taxaw si vraiment c'est c'est déplorable. ñun euh xol bu jeex désolation bu mag lañ am parce que. Euh, classe yu bare baaxul amuñu mur dof fi lañu nek tokkatu yambaay xar yek nak yek yeb dañuy doxantu ci bir école yi bon xa football fi ci ginaaw parfois ñu sanni ay xeer mu dugg ci bir classe vraiment man dal sétane nañ dal sétane seetaan dafa melni même bu doon classe bo xamne dafa nek sax en pleine ville du melni parce que en pleine brousse parce que classe abri provisoire sax du melni mais fi en pleine ville en pleine ville près de la capitale nous école une école. dara dara dara dara dara dara dara toiture même toiture bi camion je demande est-ce que du euh, donc benn classe bi yaakaar naa dina yàqu voilà vraiment désolation bu mag la ñu am.